thank you engagement bi nemmeeku si Touba rëy na loolu si ñii di acteur politique yi kenn nga nii di honorable Matar Diop wàcc si na si terrain bi fas yéene nag amal liggéey yu am solo doon ay porte à porte ay campagne si biir daara yi waaye nag bi mu ñëwee doon jébal lim bu takku si ay produits yu am solo ngir xeex feebar bi si kàddu njiitam di Aminata Mbengue Ndiaye présidente au conseil des collectivités territoriales yëkkati na kàddu kañaat askan wi. lépp lu dal ci dëkk yàlla dogal na tamit en tant que président de la commission santé affaires sociales du haut conseil euh, fan yëpp maa ngi ciy waxtaan ak président du haut conseil muy euh, soxna Aminata Mbengue Ndiaye ma ne ko euh, ginnaaw bi nga xam ne joxe nañ sagu 20 million francs CFA au niveau national jox ko ministre bi ma ne ko kat bu ma sañoon Touba man wax dëgg yàlla dafa ma dafa ma daf ma dafa nekk sama xol te feebar ba moo ngi fa di lëmbe bu ma sañoon kat wax dëgg yàlla da ngay seet noo ci mën a jàppee ndax ñu mën a dem ca ca dëkk ba wax ak nit ñi sensibiliser leen. ginnaaw bi président Macky Sall euh, joxe ndigal euh, ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci félicité ndaxte jël na ay mesures yoo xam ne yaakaar na tey ji moo tax feebar bi mën a di dellu ginnaaw nii ba ba mën koo daan. honorable Matar Diop jëlaat kàddu wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunu ñooñ yi nekk bitim réew di ñëw Sénégal lii la leen dénk. waaw mais xam nga loolu day day naqari nit koo xam ne ci àll bi la jóge wala aw yoonu suuf ñëw laqatu foog nga nekk un républicain nga bëgg dëkk bi wala nga bëgg réew mi nga ñëw signalé wu man maa ngi di wax ne rien n'est trop du complexe. ni gën a grave ñoom ñuy làqatu ci la gën a bonee ci ñoom nañ gaaw ñu signalé wu rapidement possible nañ dem wane wala ñu woote si kii euh, euh, numéro yaa ngi fi numéro vert bu ñu wootee de bu ñu wootee même buñ ñu tëjoo dana leen fekk ba fi ñu tëju euh, faj leen fa bañ wér te da ngeen duñ xam dara jëlul ñu rus numéro vert yaa ngi fi. waaye nag bu dee ñi nga xamante ni ñoom ba léegi am nañu xel xàll si feebar bu ni mel nee na kat mi ngi leen di tinu ngir ñu mën a bàyyi xel nekkat kilifa yi duñ dox si caaxaan. ba nga xam ne ñëw nañ ba nga xam ne xalifa général des mourides yëkkat ko ci taabal ji Euh, présidente institution Aminata Mbengue Ndiaye joxe 20 millions joxe waat ay matériel fii ci biir dëkk bi ñi nga xam ne ñoo doon wax feebar amul yëpp ñu woo leen déglu leen ñoom ñëpp delluwaat nañ ginnaaw feebar amatul moom loolu leneen la ñuy wax léegi lan la ñuy def mooy nan la ñuy def ba feebar dellu ginnaaw feebar dellu ginnaaw mooy mesure yi président jël surtout ñoo ngi koy saluer ñun en tant que haut conseil ñoo koy saluer en tant que doomi dëkk bi yaakaar naa bu ñu defee niñ ko waxee di su mu set bañ di muytu rassemblement yi moytu di di di ci mbumbaay yaakaar naa yàlla mën nañoo defal feew bi dellu ginnaaw. na honorable Matar Diop joxante rendez-vous ak waa Touba fas yéene wàcc si terrain bi amal liggéey bu am solo nekkat yoon wi képp koo xamante ni yaa ngi yëngu si wàllu politique rawat na ñi bokkal langue gii di benn bokk yaakaar ñu soobu si.